cake wala. non tortilla <laughs> Tortilla revisité n'est-ce pas waaw revisité bisou moom lañ leen defaral tey daal di koy amélioré nag ak quelques légumes la plupart du temps tortilla euh, pomme de terre kese la ñu ciy def ak oignon mais nag tey dama ci rajouté li nga xam ne mooy euh, carotte am nañu olive noire tuuti saucisse de poulet am nañu tamit euh, persil coriandre ak beurre ak suñuy épices yoo xamante ne moom lañ ciy def pour gën a amélioré li nga xam ni mooy goût bi ak sauce béchamel bu allégé boo xamante ne ni moom laa jël tey pour lier li nga xam ne mooy pomme de terre yi ak nen yi ak légumes yu ñu boole commencé woon naa nag préparation bi dama jël rek euh, aay def euh, tuuti beurre ak carotte bi daal di ciy def euh, li nga xam ne nag mooy pomme de terre bi bàyyi ko nag muy ñorandi ak moom fi mu ne nii damay ñëw rek daggaat. tuuti beurre daal di ko ci rajouté nga xamante ne ni nag mooy dem ci fond bi le temps que may defar li nga xamante ne ni mooy euh, mélange bi ma ci euh, sotti beurre bi fondre ànd ak moom gis nga ni pomme de terre dañ ko dagg rek moom en petit cube bàyyi ko nag ci poêle bi muy ñor nànk ànd ak carotte bi gis nga beurre bi dama koy bàyyi au milieu bu ko defee mu fondre daal di dem ci euh, côté yëpp lii nag dama koy bàyyi nii rek mu mijoté waat tuuti rek am na nag tuuti aay nga xam ne aay moom saa bu ñuy togg dañu koy def mu gën a relever li nga xamante ne ni mooy poulet buubi fi mu ne nii nag dagg naa saucisse de poulet yi ba pare. damay ñëw rek jël euh, oignon daal di koy dagg moom tamit euh, en petit euh, cube gis nga nii ñu dagg rek suñu oño benn rek laa jël gis nga nii moom la ñuy dagg nii ba pare suñu paree daal di jël fii rek piment vert moom it benn rek laay jël ñu rappeler que ni pomme de terre bi def nañ ci tuuti épice sel poivre ak li nga xamante ne ni nag mooy aay ak tuuti beurre bàyyi ko nag mu ñorandi ak moom gis nga ni piment vert bi la découpé ak oignon bi su ma paree nag damay ñëw jël li nga xamante ne ni mooy persil plat bi tey persil plat laa utilisé gis nga dama jël benn bouquet bu généreuse daal di koy trempé ci ndox ñu raxas ko ba mu set comme li ñuy wax rek Covid baa ngi fi ba ah, ah, baa ngi fi ba léegi bu ñuy togg nañu bàyyi xel ci euh, légumes yi ñuy togg di raxas ba mu set soo amul eau de waxoon naa ko mën nga jël vinaigre blanc mu daal di rey microbe yi nga xamante ne nii moo nekk ci euh, légumes yi ak yëpp nga daal di teg essoré ba mu set daal di garder ci sa frigo saa booy togg rek da lay leer ni nga togg sell na set na te nit ñi mën nañ koo jëfandikoo te du leen andi la euh, benn gàllankoor gis nga naka persil bi tey dañu ko dagg rek nii grossièrement def ko en gros morceau dagguma ko ba mu sew noonu laa ko bàyyi gis nga nag beurre bi commencé na di fond ci li nga xamante ne nii mooy euh, pomme de terre bi sauce béchamel baa ngi ne le li may def rek mooy daal di ñëw rek jël li nga xam ni mooy saucisse de poulet bi ak oignon bi daal di def euh, tuuti euh, piment vert moom laa def persil bi nag gis nga dama def persil bu doy boo xamante ne ni affaire bi dafay am goût li nga xam ni mooy tortilla bi day am goût gis nga nag ni on mélange le tout daal di ñëw rek euh, jël suñuy épices daal di ciy sotti voilà gis nga nii rek. ñu daal di am fii nag benn mélange boo xam ni épice lay doon euh, saucisse de poulet euh, piment vert ak euh, li nga xamante ne nii mooy oño moom la ñu jël rek daal di koy mélanger fii suñu paree nag dañuy ñëw ñëw jël rek nen yi nga xamante ne nii moom la ñu am fii na utiliser bool bu mag bi parce que dama fi war a sotti béchamel bi ci kanam comme ça nag mélange bi gën yomb ci man voilà gis nga nii rek comme li ñuy wax toujours rek nen yi ñuy éviter di ko def directement rek ci li nga xamante ne nii mooy appareil bi nga xamante ne ni moom la ñu utiliser parce que fois mën mën nga ko ci sotti nen bi du frais su boobaa mën na la yàkkal nag li nga xamante ne mooy sa préparation déjà ni itam dama jël quelques olives noires rek daal di ko ci euh, sotti yeneen yi mën naa ko teg nii à côté dinaa ko soxla ci kanam li may def nag mooy ñëw jël benn nen bi daal di koy sotti ci suñu benn euh, bool gis nga nii rek. ñu sotti benn quatre rek nag laa utiliser tey parce que normalement pour euh, un kilo de pomme de terre da nga war a jël euh, six nen mais man nag comme tey dama defar tuuti béchamel moo tax ma jël euh, quatre daal di koy wàññi voilà gis nga deux trois ma sotti et enfin ñu terminer ak quatrième bi moom it ñu daal di sotti. gis nga naka buñ ko ci sottee noonu ba pare mën nañu def ne bool bi daal di mélanger ñu fàttali juste fii rek oignon la ñu def persil plat ak euh, saucisse de poulet ak suñuy épices ak benn piment vert moom lañ découpé mu daal ñuy jox nag appareil bi déjà nag fii tamit am nañ fi sauce béchamel bi nga xamante ne def nañu ko nañu jël rek deux cuillères à soupe de farine daal di jël tamit nag beurre euh, trois cuillères à soupe moom lañ jël jiital ko mbay ba beurre bi fondre ñu farine bi gis nga ni farine bi commencé na di euh, doore ñu jël meew sotti ci di remuer nag ak benn cuillerée en bois de préférence moom la ñu def gis nga nag dañuy ñëw jël sauce béchamel bi daal di ko ci euh, sotti sotti ko ci appareil bi nen ak euh, persil beeg yi ñu ci def yëpp ak suñuy épices daal di sotti bes sauce euh, béchamel bi yëpp la ñuy sotti lii nag moo ñuy permettre mu doon nag li nga xam ne mooy élément de liaison mooy lié pomme de terre bi ak li nga xamante ne ni mooy légumes yi ñu ci sotti nii léegi ak oignon bi soo xoolee oignon bi sauté waale wuñ ko ak euh, pomme de terre bi dañu ko bàyyi noonu li may def rek mooy daal di jël sama cuillère en bois daal di koy aplatir ba nga xamante ne ni bu ñu ko ci sottee di nga gis nag lii nag pour ñi bëgg nga xamante ne ni bëgguñu Euh, fromage gruyère mën nañu ko bàyyi noonu euh, bu ñu bëggee nag gruyère boo ko ci defee ba bàyyi ba mu commencé ñor nga daal di jël nag li nga xam ne mooy fromage bi daldi di ko ci rajouté gis nga nii rek damay ñëw rek jël appareil bi daal di ko ci euh, sotti voilà gis nga nii rek au fur et à nag muy ñor béchamel bi dafay wàcc ci suuf. ànd ak pomme de terre bi ak nen bi gis nga nii dañu koy gën a étaler mu daal di wàcc ci roboor yi su génnee nag dafay def nag day jël forme poêle bi def benn forme euh, gato salé genre boobu noonu lay mel gis nga nii rek suñu xasee nag ba def nii mu ànd ak oignon bi ak yooyu mën nañu creuser ci côté yi euh, bu ko defee béchamel bi wàcc bu baax a baax a baax ak li nga xamante ne nii mooy euh, nen bi gis nga nii rek suñu paree da ngay daal di wàññiwaat gaz bi jël benn papier alu daal di koy couvrir bu ko defee vapeur bi da koy ñoralaale wala su fekkee am nga benn couvert nga tëj ko de préférence nag à fudu nga wàññi euh, gaz bi bu baax nga bañ a yàkkamti su ko defee nag ci kaw ak ci biir yëpp dina ñor te du cramer parce que boo yokkee gaz bi ci kaw dafay ci suuf dafay xëm te li nekk ci biir du ñor boo koy lekk euh, du agréable parce que da ngay sentir nen bi te sauce béchamel bi farine la bu ñorul rek mën na la andil ay euh, ay jafe-jafe biir wala ay ballonnement koy bàyyi biisu ub ko comme li ma waxoon sànq rek su fekkee da nga bëgg gruyère mën nga ko ci sotti mais soo ko bëggul mën nga ko bàyyi nii parce que déjà persil bi ñu ci def ak ay bi ak li nga xamante ne mooy oignon bi ak légumes yi ñu mélangé yëpp déjà li nga ci bëgg rek danga ko ciy am bu ko defee nag pendant muy ñor ñu préparer tout ci laitue à côté mën ko accompagner ak moom nga xamante ne lii mën na doon benn soit accompagnement euh, pour euh, soo defee rek euh, poulet mën na ko accompagner ak tuuti sauce blanche wala rek bu la neexee mën nga ko lekk nii trop bax parce que pomme de terre yi tamit xaw naa diis bisu lii rek bu fekkee njóobeen yi moom euh, il faut ñu doole ci ginaar wala ñu doole ci mburu wala dara mais lii rek normalement wax na la doy pour benn ah nooy na ba pare nooy na ba pare. alors Sophie tey yekkalal ma lépp Elimane Lam. Elimane Lam waaw moom mooy goro ji bi dégg ah macha allah kon nag eh, tonton Elimane Lam tey eh, plat buñ fi bi lii ngay gis ni tey suñu paree maag bis bi dinañ ànd andil la ko noonu baax na. yi ma doon maa ngi leen di jéggalu <laughs> ndax dama leen postel benn affaire boo xam ne dañ na pël bee dugg supermarché bëgg a jënd ginaar xam lu mu tudd. waaw mu jël nen bi ne leen je cherche la maman de ça. <laughs> assuré. Elimane nar ma cee bàyyi Elimane la maa ngi tuub maa ngi jéggalu <laughs> te luñ fi toog rek yow lañ ko yekkal donc merci beaucoup Sophie ci plat bi ñu indil dañ ñuy inspiré tous les jours pour li nga xamante ne moom la ñuy togg suñu kër yi ku bëgg euh, def recette bi suivre ko mun nga démarrer replay pour euh, xoolaat ko dañuy continuer comme ni ñu leen ko annoncé tout à l'heure waxtaanee benn association boo xamante ne euh, manifestation am na fi